ngir fas yéene leen faram fàcceel lépp loo xam ne dafa aju ci aj ak umra ñu koy wax manasikul aj manasikul umra dinañ ko jël nag ci ay point par point nan la nit war a def bu fekkee ne moom wax na allahuma labbayka hajjan nga xam ne loolu ifraat la boo ko déggee mooy yow suñu borom ñëw naa wuy si la fas yéene def aj rek noonu lañ koy toppee ñëw ci tamatu leeral ko ñëw ci xiraan leeral ko Tawfekh Production nag yéeneem mooy képp koo xam ne da nga nekk ci diaspora wala nga nekk ci biir réew mi boo ñuy topp boo demee mun ngaa bañ a am mursid ndax aj day loo xam ne nit mënu koo def ci xel ak xalaat dañuy sukkandiku ci alxuraan sukkandiku ci sunna sukkandiku ci ijma ngir képp koo xam ne suñu borom woote bu mag boobu nga xam ne Seydina Ibrahima alayhi salaam woote na ko te ba muy woote foofu ndox ak lépp loo xam ne luy nuru gàncax amu fa kon nag li nga xam ne mooy yéene Tawfekh Production mooy fexe ba maanaam numéro bu ne ku ñu ci topp loolu day fekk loo xam ne man da koy laf kon ifraat ni nga ko waxee léegi junj ko rek mooy aj goo xam ne da nga cee wuyu si te yéene koo def moom rek bu dee tamatu la da def umra ba noppi boo ca génnee juróom-ñetteelu fan nga ñëw soog a fas yéene def sa aj bu dee nag kiiraan la day loo xam ne nag mag ñi lañ koy gën di conseiller ngir ñoom dañuy boole aj ak umra muy loo xam ne nag dinañ ko leeral ci loolu lan moo ci aju ni ñu ko Serigne Touba indilee ci téere yi. loolu nag ci tënk dañoo bëgg ngeen xam ne ku ñu topp ci Tawfekh Production Internationale lépp lu jëm ci wàllu aj di nga ci am loo xam ne wax dëgg yàlla boo demee mursid dafa munta ñàkk ci bépp tukki bu nit di def munta ñàkk nga am waruwaay waaye nag lii day loo xam ne sa yóbbal lay doon yóbbal bi nga xam ne saa yoo bëggee maanaam lenn loo xam ne lu lay dimbali la ci sa aj bu boobaa boo xoolee ci yi nga xam ne tënku nga ko ci Tawfekh Production Tawfekh Production ne la fii nga toll lii nga war a def kon nag mbokk yi ñoo ngi leen di jox di daje ci ay waxtu yoo xam ne Tawfekh production dina ko waajal def ko ay numéro bu ko defee kuñ ci topp rek incha allahu rabbi dinañ leen may tamit beneen wàll woo xam ne képp koo xam ne am nga ay laaj yoo xam ne def nga ko am na boo numéro wala benn mail boo xam ne boo ko ci jugalee ci yeneen numéro yi di nga ci am tontu lu mu gën a gaaw ñoo ngi leen di wax salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك